rafetlu àndin beek le buzz du web la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen kontaane di am mbégte kontaante ci di janoo ak yéen saa di ànd ak yéen ci ay jotaay yu ngeen di wétiliko quand même tey ñu am mbégte fas yéene am jotaay ak kenn ci icône yi nga xam ne Sénégal xam nañ leen culture xam leen ñu gëj ko gis ñu bari ci sénégalais yi di ko laajte ñu xamoon quand même juróom ak ki nga xam ne mooy bu Boukhar doin moom la rédaction Senbuzz di am mbégte tey fas yéene am ak yow jotaay mon très cher moon la di la gërëmaat bu baax a baax a baax ci disponibilité bi nga ko wax del mm-hmm. waaw jaajëf ñu ngi lay ziar bu baax. merci di la sa waacu waay di kontaan ci yow. jërëjëf vraiment ci seetsi bi. très bien am nañ ci torop am nañ ci mbégte bu baax a baax. alors mais pour commencer dinañu jaajëfal certainement grand bu baax bi nga xamee ni moo ñu may occasion tey. wala pour Aliou bu baax. Mm-hmm. di ko xam ni vraiment. kenn la ci man maa ngi koy ziar bu baax a mm-hmm. rédaction bi di ko jaajëfal bu baax a baax alors xam nga ni dootuñu la présenter quand même dootuñu la présenter ci askan li ñëpp di laaj mooy pause bi nga xamee ni gis nañ ko ci carrière ki nga xamee ni mooy doyen lan moo ko waral sa absence entre guillemets lan moo ko waral. waaw olof day wax ni kuy dem ba xamoo fa nga jëm da ngay dellu fa nga jógee. Mm-hmm. waaw donc euh, dem nañ ba benn moment gis nañ ni que téléfilm yi bari ki ki kiy dund kiy dunde aar ak ki koy dundal donc ñu dem ba benn moment boo defee dañ naan def na parce que yi ñuy seetaanandoo day bari donc ñun nañu reculer un peu pour préparer waat waaw ñëwaat dellusiwaat ci ci ci kaw ci seen bi. d' accord wu bi lu ko waraloon lu tax mënoo woon gëm ni benn conflit la c' est vrai que bari na génération bu nekk. Mm. mais defoo ko xeex boo xam ni combat la boo waroon a porté certainement pour war a avancer au lieu que ngay reculer aussi. waaw mais xam nga boo boo boo boo bëggee avancer. Hmm. boo bëggee avancé avancement li la koy may mooy nga nekk ci benn mbir di dem ba mu yàgg nga xam mbir mi kat mi ngi am benn sooxe. waaw nga wàññeeku pour préparer waat pour dellusiwaat. man je pense que man loolu laa gisoon ni que moo doon li gën. ma def ko te. et pourtant gëm naa ne mooy liggéey. d' accord alors sa absence du la concerné yow kese quand même parce que dafa am koo xam ni moo tax sénégalais yi xam la muy Père Boukhar ngeen doon def ay jeux yu am solo. Hmm. Euh, bu ñu demee ba di ko gis gisuñ la aussi lan nga ñu mën a indil ci ay leeral ci loolu. waaw waaw moo tax sénégalais yi xam ma maa tax sénégalais yi xam ko. forcément parce que ñoo ñëwandoo. Hmm. ci milieu bi. Hmm. donc euh, waaw. dafa am ne waaw sant daal ñu ngi sant bu baax ci loolu. d'accord alors mais mais dafa nekk loo xam ne aussi je pense que c'est très normal fans yi ak soppi yi nga xamee ni. Mm. Euh, dañu gisoon benn dio ak complicité artistique bu amoon. Mm. ñu xam quand même le vrai problème da mënatul ànd liggéey donte ni certainement dooñu wax lu bari. Mm. lan moo tax décidé wu leen continuer ni ngeen doon liggéey da nga gis ni mënatul nekk yéen ñaar ngeen liggéey. non ñu ngi liggéey Futurs Médias. parce que ñoo ñu ngi ñu ngi ngi koy ñu ngi liggéey ensemble. donc xëy na bokkatuñu ay euh, ay série genre donc euh, loolu kenn ku ci ne nag da koy nangul ndax mu ngi ci roqam di liggéey maa ngi ci sama roq di liggéey. d'accord mais lu tax loolu lu tax nangu leen bariwul ay production yoo xam ne da ngeen ciy bokk yéen ñaar di ci évoluer te ñëpp xam ni am na quand même complicité d'artistique bu amoon seen diggante yéen ñaar. waaw loolu du kii xam nga ñun mën naa ni que suñuy production du ñun ñoo ko daan décider. Hmm. dañu nekk ci benn télé bu ñuy wax TFM Télé Futurs Médias. Hmm. donc di fa liggéey. donc ñooñ ñooñ daan produire pour ñu ñëw def suñu film waa te TFM gëj naa def production donc loolu moo waral ñu gëj a liggéey ensemble. d' accord TFM gëj na leen a produire yéen quand même mais TFM mu ngi def ay production euh, doyen. waaw waaw kon gëj nañoo produire. d' accord waaw alors ndax da gis ni quand même dafa am benn échec. de carrière wala benn échec d' bu am ci seen diggante yéen ñaar bu ñu demee ba nga xamee ni non seulement gisatuñu leen yéen ñaar ngeen di jouer mm. mais aussi bariwul. ay production yu récente yoo xam ne dañ la ciy gis yow wala ñu ciy gis per bu xar dafa mel ni quand même entre guillemets euh, ban yi ngeen gën a jege instant bi quand même. waaw ci ci xam nga xam nga li may wax rek mooy. Hmm. Euh, <laughs> euh, dafa am loo xam mënul sooxeel carrière nit. boo amee talent mënul sa carrière mënul sooxe. Hmm. donte Sénégal at muñ na kenn xew ñu nangul ko ko xew bi mais talent doo ko am di chômer wala ngay <coughs> dellu ginnaaw. donc di nga toog nag benn moment xëy na di préparer wu wala di liggéey pour loo bégalaatee sa askan. Mhm. mais talent bi ñu yor moom macha allah tàgguñu suñ bopp. Mhm. wax dëgg yàlla. du ñu bàyyi parce que yor nañu bagage yoo xam ne mën nañ koo maintien jusqu'à la fin du monde. d'accord mais doyen par contre man euh, toog ak euh, artiste ak euh, expert yu bare bari ci mbirum culture ñu gis ni quand dafa nekkoon échec parce que personnage bi nga xamee ni yow moom nga doon def ak Père Boukhar personnage la yoo xam ni mënul évoluer ak nit ki cest dire du ay personnage yoo xam ni quand dafay ànd ak yow mën na la apporter carrière bu normal ndax ci suñ diggante ñun ñaar. non personnage bi nga doon porté je waaw waaw personnage bi nga xam ne moom la Sénégalais yi doon gis ci yow. Mm-hmm. ndax jàpp nga ni personnage boobu kese mënoon nga ci def carrière. bu baax mais nag ñun dañoo yemul ci benn personnage. Mm. parce que ñun ay acteurs ay artistes lañu yoo xam ni dañoo mbappat mën a génnee ay yeneen personnage yu ëpp doole sax. Mm-hmm. ba ñu paase parce que man boo xoolee beneen sens Sénégalais yi benn personnage rek lañ découvrir rek. bu ñu ci mën absolument yoo xam ni tey jii bu ci génn Sénégalais yi mën nañ ko cons. d'accord donc loolu du du du souci. parce que benn mais personnage yooyu découvrir guñ ko le fait que ñu découvrir la mille la dix ans quinze ans nga nekk ko ci carrière mm. ak benn personnage ndax loolu avantage la tey pour nga génn tey ci personnage boobu aussi def leneen dina la apporter lu bari pour yow. bien sûr que oui. Mm. waaw ah. waaw bi nga xam ni moom la ñu yoroon. Mm. doon ci bëggal askan bi. personnage la boo xam ni si vraiment gars yi bëgg ko mais nag ñun. ñaanuñu yàlla nag di yem ci benn personnage rek. parce que boo dee artiste wax dëgg yàlla war nga mën a jouer ay multifacette tey jii ñun ñu indi la ci drame indi la ci comédie indi la ci leneen nga def ko. donc nag ñu ngi ci ñu ngi ak yeneen yoo xam ni. bëgg nañ ci bégal doomu aadama yi te su génnee je que dina leen na. d' accord alors looy tontu ci ñi jàpp ni ñu bari ci artiste comédiens yi dafa am lu leen di manqué de ce fait que aussi euh, dafay xaw a difficile ñu gis leen ñuy évoluer ci li nga xam ne mooy drame je veux gis benn personnage boo xam ni mhm. pour nga génnee ko defloo ko drame sax dafay jafe. Mhm. man drame laa njëkk a ok parce que gis nga aar boo ci mbappatee. Mm. def ay formation mm. jàng ko amul benn personnage bu ñu lay jox te doo ci dugg. Mm. loolu mënul nekk. donc nag euh, am na ñoo xam ne xëy na am nañ blocage boobu c'est parce que topp nañ comédie topp comédie topp comédie ba mënuñu def drame. Mm-hmm. mais man mën naa la jouer 100 pour cent drame te du ma def comédie man. ok te yàgg naa ko def. alors ban choix aussi moo la posé woon quand même personnage bi nga xamee ni moom nga moom nga daan jël di ko woon askan wi aussi nga porté woon personnage boobu mm-hmm. lan moo la vraiment inspiré woon personnage boobu. waaw lu ñu inspiré wooyu dañ ñu ma. ab doyen nga ci brigade police bi te doyen ku ñëw ci brigade bi moom moo lay dalal. Mm-hmm. yaa ngeen dégg eh waaw diw sama doyen la. donc ma xam ni que euh, comme comme comme doyen mag la donc euh, bu ma solo ba pare. Mm-hmm. waaw war naa langage boo xam ni ku ko dégg di nga xam ni euh, kii kat vraiment euh, li muy wax kole na ak personnage bi mu am. d'accord donc loolu moo indi loolu. très bien alors kuy wax doyen aussi di nga wax vraiment ci carrière am ci li nga xamee ni mooy groupe Futurs Médias euh, ma gëstu ni quand même daanaka ba ngeen fa demee yow ak Père Boukhar ci la crise commencé am seen diggante. neexoo amatul euh, de ce fait daa ngeen bokk programme mujj gi bokkatul leen programme ndax sa euh, li nga xamee ni mooy sa dugg groupe Futurs Médias ak ki nga xam ne mooy Père xar aussi amul vraiment lu mu yàq ci seen carrière yéen ñaar. non man man man sama côté laa mën waxee sama dugg groupe Futurs Médias hmm. man ndam rek laa ci laa ci gis sérieusement parle amul ci lenn lu yàq ci sama carrière parce que euh, carrière kenn du ko yàkkamti carrière kenn du ko parax paraxee nit il fallait que boo bëggee def dara nga xam ni tepp tepp moo gën yu rét doo jékki-jékki rek tele bu ñu zappe gis la fa man j'aime pas bugguma loolu man dama bëgg nekk ci sama temps di liggéey ci télévision bi donte gaa yaa ngi def ay série man ma garde sama image di liggéey ndànk-ndànk ba fi ma bëgg a ma àgg fa. d'accord mais mais sa dugg ak euh, groupe Futur Media xaw na quand même am lu mu yàq sa diggante Père Boukhar Doyen. non man sama côté yàqu ci dara. ok waaw sama côté yàqu ci dara parce que damay wax toujours man mm. euh, yi ñun artis yi nañuy booloo des fois tey dimbalante tey jàppalante tey xam ni ñoo bokk métier mi. Mm-hmm. kenn ku ci nekk jël sa moroom def ko comme sa bopp te mu bañ a yem ci làmmiñ. Mm-hmm. maa bëgg diw diw sama rakk la diw daf maa neex diw nàngam diw bu ma sañoon mu tàkk te au fond du dëgg loolu moo ñu sonal li ñuy wax ci làmmiñ bi hmm. waa na doon li nekk ci xol bi donc loolu su amee rek kenn dootu yalwaanal artiste d'accord alors mu nekkoon surprise quand même bi ñu gisee ni divorce am na divorce professionnel bien sûr am na euh, sa diggante ak ak bu xar lan nga ñu mën a justifier quand même différence bi nga xamee ne bi nga xamee ne aussi am na sa diggante ak père bu xar te euh, xam nañ ni sa diggante ak na meloon malatu ko aussi doyen. ah gars yi de ñoom dañuy jékki-jékki rek gis la defatu leen série ñu ne ah diw ak diw de duñ mais invité wuñ fenn père bu xar ba gis la ci côté aussi ñun ñu ngi ci milieu bi ñu ngi gëstu aussi quand même doyen mm-hmm. am na ci loo xam ne dañ la ko laaj juste ma aussi am na ci loo xam ne boo ñu ko waxul aussi du ñàkk ñu ñu ñu mën ko xam. Ah, sànq dama ci wax loo xam ne si rek. Hmm. loolu ci laa yu tëjee man maa ngi ci sama di liggéey wax dëgg yàlla xëy na keneen mi ngi ci roqam di liggéey. donc man sama liggéey laa tal maa ngi ci ak li ma séq ak télévision Futurs Médias. Hmm. di ko liggéey ak ñoom man ci loolu laa concentré wu. keneen nag xëy na moom per mi ngi ci leneen di ca liggéey donc loolu kenn ku ci ne am nga droit daal nekk ci sa roq liggéey donc ci loolu daal laay mën a tontu ci. d'accord ci ci ci ci li ma jot gëstu benn contrat d'extérieur boo xam ne Espagne ngeen waroon a dem moom père bu xar doxale ginnaaw dem wala yu demee noonu bokk na ci li yàq sa digganteeg moom ndax mën nga dikk ñun ci li nga xamee ni ñu bari dañ jàpp ni quand même mooy li causé sa divorce sa divorce ak ki nga xamee ni mooy père bu xar. Espagne Espagne moom moo mujjee dem sax bàyyi la fi. <laughs> waaw man de am na yoo xam ne du ma ci détaillé ndax man dem Espagne ak dem Pout gi laa yemale. mais c'est vrai mais loolu am na. contrat professionnel la woon ngeen bokkoon ko yéen ñaar. mais man yooyu yooyu kiiwul man gis nga jaan bi. li war a am ci kaw suuf. loo ko koj koj loo ko karkar loo ko fakkatal fakkatal yàlla bind na ko jiitu na juddam. Hmm. kenn mënu ci dara dem Espagne ak dem États-Unis mënumaa yàqal sama diggante kenn parce que man dama nekk ku gëm yàlla koo xam ni. su ma waroon dem Espagne sax mu leer ni ma demu ma sax damay xam ni waruma faa dem. Mm. donc loolu mënul yàq sama diggante kenn. Mm. yàlla na ñëpp dem états uni d'accord man yàlla ma yàlla suturaal fii ci Sénégal. Hmm. fii ci télévision Futur Média. Hmm. may liggéey di tedd. d'accord léegi sama ndam. très bien alors ndax jàppoon ni aussi xaw na nekk retard tuuti tey euh, li nga xam ni doyen représenté na ko tey ci art ci Sénégal ci comédie aussi amul wala bariwul ay production yu mag jamono ji yoo xam ni xëy na ñu ngi gis ñu mel ni tonton Tafa yeneen ak yeneen. Hmm. te yàlla dogal na quand même yéen njëkk gis ko ñoom. Euh, yu bari bariwul man plan de carrière la parce que latew ma dama cee sant yàlla bu baax fexe naa ba garder sama image. Mm. te loolu am na solo trop ci artiste bi man j'aime fu ñu zappé rek gis ma. mais bu ñu lay d'accord produit bu ñu la fayee moom ngay wut euh, doyen. waaw dëgg la mais xaalis aussi day ànd ak euh, carrière bu baax xaalis day ànd ak produit bu baax mais bëgg a rek pour jouer. man tey jii bari na producteur yoo xam ne si tey contacté nañu ma pour ma jouer leen mais man bu may jouer ci mbir dama ciy gis sam bopp d'abord damay xool côté carrière bi damay xool aussi côté lii fan la mën a àgg hmm. mais duma ñëw rek jouer pour xaalis xaalis bi jeex après ma dem non non non. waaw. nan ngay expliquer yi ak li nga représenté tey du ñu gis doyen mu liggéey ku mel ni Sanex du ñu gis yi mu liggéey ak euh, ay vraiment comédiens yu mag yu bëree bëri da jàpp ni quand même dafa am lu nekk ci yow da yaatuwul dënn moo tax xëy na ñu bëri ci artistes yi ñemewuñ la wala sa relation ñoom aussi dafa des. waaw de euh, artistes yëpp laa amal jàmm. ay saa Sanex maa ngi koy nuyu sama xarit la waaw xëy na nag mën nag dama dul dem ci kenn naan ko kaay kaay ñu liggéey. man damay bëgg ba nit ki soxla ma ni ma kaay ñu liggéey mm. waaye yaakaar naa ni man bu ma yaatuwul dënn kenn yaatuwul dënn kooku moom xam naa ko baax parce que ñëpp laa ëmbal jàmm mais tu veux pas me dire que li ngay def comédie mm. Mm. production yi bari na producteurs yi bari nañu macha allah artistes yu mag yi fi nekk aussi mm. soxla quand ñu def ak ay Diop ñu gis la nga liggéey ak ñoom aussi doyen waaw mais xam nga leen ku ci nekk man man xëy na xëy na casting bi ñu soxla lañ gisagul ci man rek bis buñ ko gisee buñ ma woowee ñu xool ñu waxtaan ñu def ko est-ce que relation bi am na saa neex sama xarit la waaju baax dañuy déggante amul artiste bu ma amal xaar ma yàlla xëy na kon artiste ba mooy téye loolu. mais man ñëpp laa bëgg. ñëpp laa fonk ñëpp laa amal euh, jàmm. d'accord alors ñu bari jàpp ni dafa am benn euh, feebar boo xam ni moo la daboon ci sa digg carrière jamono bi nga xamee ni aussi ñu ngi leen di gën a gis fi nga xamee ni mooy groupe Futurs Médias may nuyu la grand Birane Ndour bu baax a baax danga nga feebaroon. ba nekkoon ci ay moment yu difficile yoo xam ni euh, doyen bu ñu ko jigee production sax daanaka yaramam du ko man <laughs> loolu aussi bëgg naa ngeen di ma ci ay leeral quand même dégg naa doyen bu ñu ko nee nga war a tourner sax mu tëdd feebar. waaw <laughs> ah, mais loolu moom foog nga leeral ko vraiment. waaw loolu gars dañuy wax rek. loolu du dëgg. dañuy wax rek. ok ñun suñu feebar bi gën a mag tooy la man dama koy wax chaque jour. gargot biñ may woo. Hmm. gargot bii paase. Hmm. biñ may woo dafa fekk ma ma ma ma tooy tooy gu métti. <laughs> waaw loolu moo moo ma moo ma poussé ba mënu ma woon ñëw pour pour jouer ci gargote parce que boo demee bay sëqat sëqat su metti xam nga ak sa yaram di tàng noonu am na yenn production yi ko def. mais feebar ba tëdd laaj ci genre comme noonu. mais mais doyen doo ma wax seetaan bu xar mun a feebar nga fi ba mu annulé ay contrat am yoo xam ne amoon na ko Espagne <laughs> jël xaalis boobu joxe la ko ngir nga fajoo ko loolu aussi tu veux pas me dire xëy na euh, soj la woon wala tooy la woon aussi. non loolu amul loolu moom. du moom père bu xar moo wax. loolu duñ ci duñ ci débat parce que loolu moom amul. père bu xar feebaroo mu yëkkati xaalis ko annulé contrat am Espagne te wax ko. man bu man guddi ga j'étais présent maa ngi fa woon mu toog wax ko nga ni loolu amul. man bu ma feebaree Futurs Médias may ji man maa am IPM ci télé bi nekk ci télé Futurs Médias. feebar keneen di ma faj ku dul Futurs Médias mënta nekk man télévision Futurs Médias may faj. mooy sa xarit li mu wax annulé na ay contrat Espagne sax yow. yëguma ko de daal damaa xam feebaree moom Futurs Médias laay dem ni leen ah. nangam a nga ni ordonnance baa ngi nii ñu gérer lépp kon keneen keneen mënumaa faj ku dul Futurs Médias waaw loolu amul. Mm. d'accord mais mais lan ngay tontu parce que daf ñuy laaj jar ñu laajaat bu ñu demee ba nga xam ne c'est divorce ak bu xar aussi foog ñu ñëwaat ci. Mm. lan nga jàpp ni quand même ñu bari ci artistes yi loolu mooy seen problème souvent ba ñuy faral di wax ni artiste amul ngor ku mu ànd ak ren du moom lay ànd ak déwén loolu aussi vraiment soxla naa nga indil ma ci sa xalaat yow. waaw man bëgguma di tudd turu kenn. Mm. parce que bëggumaa tooñ kenn. waaye daal li ma mën a wax daal mooy. Euh, dafa am loo xam ni il faut ñu raxas suñu xol yi il faut ñu nangu dogal boo dee jullit il faut ngay nangu dogalu yàlla artiste xol ba daa war a leer rafet mu yeneen ñëpp jàmm li mu bëggal boppam mu bëggal ko moroomam mais suñu problème majeur mooy man damay bëgg am avion te yow duma lay yéene vélo avec ça ñun loolu mbëggeel am na fa te loolu ay naxaate la ñun bu ñu naxante nañ nañu naxante ci suñu biir mais yàlla kenn mënu koo nax nañ raxas xol yi bëggante yéenante jàmm kenn ku ci ne sa nawle nga jàpp ko comme sa bopp bu buñ ko defee artistes yëpp tekki mais tant que ñi ngi wax yor suñu làmmiñ di ratatati di wax te au fond loolu amul dañuy sonn rek hmm. lii donc mooy suñu problème doyen moom la rédaction Senbuzz di am ak jotaay du ñàkk aussi am na loo xam ne certainement euh, pour jeexal bëgg nga ko jëmale ci ñi nga xam ne mooy mbokk yi nga xam ne ñu ngi la doon bàyyi xel balaa may jeexal émission bi aussi. mbokk yi nga xam ni ñoo may bàyyi xel. Mm. damay damay lancer appel rek ci tous les artistes euh, surtout les actrices dafa am solo jigéen ñi waaw di leen waxaat ñu gën a góorgóorluwaat gën a fonkaat. seen bopp gën a xamaat ñooy kan ci aar bi parce que jigéen mooy àdduna xam ne aar bi liggéey la ku leen ci wax naka su dul noonu ngeen teg ko fële te xaar yàlla yàlla rek a fi ne. d'accord loo ñuy indil ci leeral aussi ci ñu jàpp ni milieu bu milieu bu complexe la dafa bari xeexoo ci seen biir dafa bari tamit defentalu bon ndax loolu vraiment am nga ci idée yow doyen. waaw man de li ma ci wax mooy. Hmm. lépp lu waay def ci nit ci lu bon suñ borom dina la ko fay. wa man yaamal mithqaala darratin xayran yara fa man yaamal mithqaala darratin charran yara lépp lu waay di def ci àdduna moo xam sànq nit wala tàqale nit ak palaasam wala def nit naka su dul noonu wala tooñ nit ak lu mënti doon suñ borom dina la ko fay ëllëg moo tax nag lépp lu waay di def na doon lu rafet man de maa ngi sant sama boroom ba buñ ma tegalee fii léegi kaamil ma waat ni taluma kenn ku dul sama jëmm ji bu ma sañoon ñëpp tekki bu ma sañoon ñëpp am bu ma sañoon ñëpp dem hmm. wallaahi naa d'accord très bien lan ngay tontu ci ñuy faral di laaj aussi ni vraiment euh, ndax tey am na loo xam ne quand même hmm. bi mas nga ko ci dund hmm. muy déception boo xam ne apporté na la ko ci ci sa dund loo xam ne daal gëmu woon ni réalité la bu nekk ci milieu bi waa am na loo xam ne moom maa ngi ko ci réccu mooy euh, da ngay dangay ngay nekk nit ngeen di ngeen di ngeen di liggéey nga yéene ko jàmm mais da ngay dem ba ci biir boo commencé am succès tuuti rek. Hmm. nga gis ni daal kii loolu neexu ko. du nangu dogalu yàlla loolu moom nekk na loo xam ni moom franchement parler. Hmm. déranger na ma ci loolu et pourtant kooku jàmm rek nga koy ëmbal. jàmm rek nga koy yéene. avancement rek nga koy yéene mais daal ñu ci bari boo commencé ñu naan diw non diw a fii toj. Mm. jàppal ni yow non non la par force te li ci gën a garab mooy nit ñi duñ comprendre dañuy jàpp ni sax yow yaa loolu daal moom dérangé na ma ci lool lool lool lool lool lool lool vraiment. d' accord mm. alors lan moo la ci gën a neex alors loo xam ni certainement boo ko amul ci milieu bi tamit bis milieu bi mas na la ko apporter. waaw li ma ci gën a neex du ma tàyyi di ko wax euh, ku daan bégee Youssou nduur mm. bis ñëw tey Youssou Ndour doon sa patron te di ko jox loxo muy jaar ci sa tur diw di la encourager di la jaajëfal di la sax bégee donc loolu nekk na lu ñu neex lool lool lool ci suñu carrière wu aar ndax dem gi nga dem euh, RFM wala Groupe Futurs Médias amul loo xam ne yàq na ko ci sa carrière amul benn impact négatif boo xam ni mm-hmm. def na ko ci sa carrière kon de yëguma ko parce que ñu bari dañuy faral di wax nii kër la goo xam ne c'est vrai que avec tout le respect quand mm. euh, bu ñu am ci ñoom ñu bari dañ gis nii kër la goo xam ne aussi xëy na dafa bari dafa bari conflit bu fay am entre guillemets. Mm, mm. loolu ñu wax yëpp am fa Futurs Médias. famille lañu Futurs Médias euh, la goo xam ni. ñëpp bëggante kër la goo xam ni amul xàjj ak seen man na ma mel ak Bouba Ndour tey boo ma fekkoon. wala Ndiaga Ndour danga naan non c'est pas lii amul. kaf la amul directeur amul nangam ñun ñëpp benn lañu yooyu ñuy wax nañ bàyyi di joxoñ naan Futurs Médias Futurs Médias jàmm doo nga fa ne feneen fii ñu nañ joxoon feneen feneen moo am problème mais du télévision Futurs Médias ah. Futurs Médias moom macha allah ñu ngi ci jàmm ju yaatu nañ ñu dimbali rek ñaanal ñu ndax nag dañoo jël pee nag boo ah. nekkee ci kaw moom lu ne ngay dégg. très bien waaw <laughs> alors bala maa jeexal doyen xam nga ni dafa am talent boo xam ne yàlla def na ko ci yow ah. euh, bu weesoo li nga xame ni mën nga reprendre mën nga def sa voix lu nekk aussi ak personnage bi nga xamee ni askan wi euh, gis nañ ko ci yow lan nga jàpp ni quand même mooy li nga xamee ni hmm. moo la manqué woon ci sa carrière te léegi nga jàpp ni mu ngi ci yow. waaw ah, léegi dama doon xale ay temps màgg naa. ma xale ci ban côté xamoo woon ku lay nax ak ku lay kiiw comprendre moon dara. te xam nga boo nekkee xale. Hmm. nekk ci ay biiri mag. dañ lay nax-nax yu metti doo comprendre lu ci bari doo ko teel comprendre balaa nga koy comprendre faaw nga nekk mag pour soog ni ah. Hmm. waaw donc moom loolu moom manqué woon na ma lool te daawuñ ma expliquer rien dara mais bi ma demee nag ba commencé nag. Hmm. màgg nag ci laa xam ni ko ah ok ndeke ko kon lii lii la lii lii la lii la. d'accord hmm. très bien ndax tey boo amoon doom fi may jeexalee. mu bëgg évoluer ci milieu bi nga nekk. Hmm. pare nga pour accompagner ko si dina la neex si mu choisir ko. lu tax bëggoo sa doom nekk ci. man bu ma sañoon tàggat Seydina Mohamed lay doon. dàqu ma nag aar. ndax wax dëgg yàlla gaa yi ngi bëgg ñëpp rëccu nga leen ci nag alors du ma ni rëccu naa ko. parce que bu ma nee rëccu naa ko kon damay wax lu ma neex. Hmm. mais li ma ci gis sama doom yàlla na ko yàlla jox beneen liggéey. bu dul aar. d'accord waaw. très bien samay doom daal. Hmm. ay xaafisul alxuraan laa bëgg ñu nekk. am na solo waaw di tagg yonent bi. Hmm. sallallahu alayhi di ci gërëm sax. Euh, Euh, Mouhamed Abdoulaye Thiam borom fondation Kër Rasoul sama papay bopp mi nga xam ni moom a gën a man man maa yor FKR luga fondation Kër Rasoul Louga. Hmm. donc kon maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci xirtal gi ñu gën a a xirtal ci bëgg Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam waaw maa ngi koy nuyu bu baax sama papa yi bopp la sama papa Abdoulahi Thiam borom hmm. fondation Kër Rasoul ku jullite ku bëgg yonante yàlla Muhammad koo xam ne lépp Seydina Muhammad la ma doon am mbégte aussi ci am ak bu baax a baax ak suñu grand bi nga xam ne aussi fii ci studio studio bi nu mu tuddee sax man boo tuddee si Abdoulahi Thiam sama xel day day kii de hmm. ah soo ko tuddee de te ma te maa ni la ko sëñ Bamba wax rek moom Seydina Muhammad ni ko huwa nabiyu wa rasulu wal xalil wa huwa alhabibu wal imaamu wa dalil baraahu lbaduhi min xayri jamal mm. wasaanahu xuduusu an xayri kamal kawnu nabial muntaqa muhammad xayral wara muxtaar inde samad ñu ne ko bamba bindal mu ne ko ahmaduna rahmatuna amiduna ni'matuna mahmuduna faraxtuna wala joodi musridi yami ñu ne ko bamba bindal mu mu mu mu ñaaj ñu ko antal karimu annal xadimu dëxëran audio mu fii ka sanaa yi kon kenn du Seydina Muhammad waaye jaajëfatee sëñ Bamba macha allah kenn du moom jaajëf jaajëfatee sëñ Bamba bu baax a baax doyen doon am mbégte vraiment eh, ci am ak yow jotaay waaw di kontaan ci yow parce que vraiment dañuy bëgg daal koo xam ni waaw question yi day hmm. day day kii te macha allah jéem nga maa dugal fu ne waaye ma raso rek ne ma raso rek waaw di di gërëm bu baax a baax comme ni ma ko waxee sànq hmm. génération studio génération image image du studio waaw maa ngi leen di jaajëfal bu baax Aliou Ndemaan nekk fa di sama waa ji waaw di di filmer loo xam ni nag o oh, macha allah gars yi am nañ problème macha allah waaw ñu ngi koy sant di ko gërëm muy suñu xarit di suñu coloré di nuyu bu baax a baax euh, di nuyuwaat Binta euh, di ko ziar gaynde gi maa ngi koy bëggee bu baax mi ngi ñëw bent du yàgg sëñ bi di jaajëfal baax a baax waa seen buzz amuñu seen fay kontaan nañ seen di jëgas ñu ngi lay ziar bu baax suñu animateur bi gas dundal merci beaucoup DJ Gas aussi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ak waa génération image studio le grand Aline jiite ko rédaction Senbuzz doon am mbégte ci dalal doyen dig daje ci lu yàggul ak beneen invité sur la chaîne des leaders fii amaanillah